waaw ah, ñoo leen di la ñu ngi dolli ziar yaa ngi biir Bose TV quoi. waaw ah, dëgg la ah, waaw noo leen yow nag. maa ngi nuyu waa senegal di nuyu di jiital nuyoo bi tamit Pëns quoi sama grand. moom moom moo ma tax a ñëw fii may nuyu ñëpp di ziar ñëpp. di nuyu waa Buzz 7 TV tamit gis nañ seen euh, participation si fest festival bi quoi. mais naka ngay dundee son yeeg du genre lépp ak Covid bi ak tay show bi nga def fi ni da nga fay aboutir affaire quoi. non affaire bi moom neex na trop quoi euh, c'est la première fois nak ma ñëw fi mais affaire bi mom neex na trop ñuy ñaan yalla tamit déwén inshallah ñu fekke ko te bo xolé tamit dama kontaan ndax sama jabar ji dafay ñëw jeyna quoi. xam moom sama jabar la man ak moom yàgg nañ xam nga mooy lool yàgg nañ bi dara doonul dara quoi mooy loolu lu leer léegi la ngay tàggatoo ak waa Buzz TV la ngay wax waa Buzz TV ak ñu koy seetaan quoi maanaam waa Buzz moom jamono ñoo fi ne moom boo dëgg yàlla ku nangu ñoo fi ne xam nga ku ko bañ tamit ñoo fi xam nga ndax yéen li def kenn du ko def yeneen ñi fi nekk nag si yeneen ñoom wax dëgg yàlla buñ amee ay trois vues nañ sant yàlla wa mais yéen moom da a xew yéen fi ne yéen a wóor def leen lu leen neex doose leen gaase leen waaw. la